Tout d'abord, bonsoir. Je m'appelle Ablaï Sam, je suis le secrétaire général de la compagnie artistique de Tuawan. Euh, ça s'appelle la compagnie artistique de Tuawan, okay. qui regroupe euh, des, des, artistes, y compris des danseurs et des, po poètes, et aussi ceux qui font de la plastique. Mhm. Tout ce qui tourne autour de l'art euh, regroupe autour, au sein de la compagnie artistique de Tuawan. Wow, euh, nous, sommes là pour une journée de réflexion en vue de planifier un plan d'action à court terme pour des artistes, euh, pour des artistes et aussi des artisans. au sein de la commune de Tivaouane. Quel est le problème que rencontrent on, on, rencontre mal de difficultés et surtout on n'a pas une salle d'épanouissement. C'est-à-dire une salle où que les acteurs culturels peuvent montrer leur, créage, leur création. Actuellement, c'est ça que nous défendons et aussi nous défendons pour que la municipalité puisse subventionner des associations qui tournent autour de la culture en tant que telle. Les difficultés à la production, cela veut dire que nous ne sommes pas mis dans des conditions euh, de création. Euh, euh, s'il difficulté. Cela veut dire que euh, avant, avant d'abord euh, la création, il faut que ces artistes-là euh, puissent avoir une salle on n'a pas encore de salle de théâtre. Et quand on parle de, salle de théâtre, cela veut dire qu'il faut une salle où nous arrivons à montrer nos œuvres en sur scène devant un public bien déterminé. Mmh. Mmh. de cette journée pour que la municipalité puisse prendre en charge toutes nos difficultés euh, en vue que, euh, à l'égard de ces orientations budgétaires-là, pour qu'on puisse nous créer une salle d'épanouissement. C'est ça que nous attendons Et tu en comptes beaucoup d'artistes Si, si, tu en comptes beaucoup d'artistes. Tu en comptes artistes à peu près. Parce que déjà, nous sommes là au sein d'une compagnie artistique qui regroupe 6 associations euh, culturelles qui œuvrent dans le domaine du théâtre. Et au-delà de, ces artistes-là qui œuvrent dans le domaine a ceux qui de, de l'art plastique. Et euh, aussi des danseurs en même temps et des écrivains. Mhm. waaw waaw bi ñu sant yàlla euh, di julli ci di ñaan ci yàlla julli Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam euh, balaa daraa xew ñu ngi delloo njukkal municipalité bi <coughs> ndax tey jii ñoom ñoo ñu may bisu lël bi nga xamante ni ñu mën a toog càmbar li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi ñu am suñu kuréel bi nga xamante ni mooy troupe compagnie artistique de tey jii. jafe-jafe yi bari na ndaxte ku wax euh, troupe théâtral jafe-jafe yi bari ndax ku wax troupe théâtral wax bërëb boo xamante ni moom ngay mën a génne li nga xamante ni mooy suñu bëgg-bëgg te grandee nañu Tivaouane fii amul benn makkaan boo xamante ni tey mën nañ faa dem wane li nga xamante ni tey moom ñuy dund amul benn makkaan. wàllum production bi gaa yaa ngi produire gaa yaa ngi produire mais manque de de subvention mooy moo ne gaa yaa ngi produire ndaxte troupe ni mbokk ci compagnie artistique Tivaouane yëpp ku nekk yaa ngi sa juróomeel production wala juróom-benn production. kon nit ko dem ba produire juróom yaakaar naan kooku yaa ngi produire waaye ñooñu dañuy produire ci wàllu téléfilm waaye nag suñu nee théâtre da yaakaar dañ loo xamante dañ koy teg suñu bët di ko xool di ko mën a jàngat mu am plus bu toog di mën a jàngat li nga la kan boo xamante ne tey ñooñu xamante ne dañ def théâtre fana mën a toog mën a xool benn centre culturel amu fi. loolu leen di xaar ci bésu tey bi. bésu ñu ngi ci xaar lu bëree bare bëri ndaxte ñu ngi bind benn plan d'action bokk. boo xamante ni si orientation budgétaire yi nga xamante ni ndax euh, euh, commission culturelle euh, compétence transférée la compétence transférée la kon lu ñuy xaar d'abord si orientation budgétaire yi ñëw ñu sóoraale ñu defal ñu màkkaan boo xamante ni képp koo xamante ni yaa ngi yëngu ci wàllum théâtre wala wàllum pecc wala wàllum leneen nga mën a soo ñëwee foofu di nga mën a génne sa li nga xamante ni moom ngay dund. man la Ndeye Sira Sow présente art et culture bu Tiwaawan. Uh-huh. waaw li waral lii tey mooy dafa am kuréel bu ñu mairie dénk ci digg Tiwaawan muy commission art et culture ma taxawaaye ma taxawee ci côté présidence bi présidente bi. Uh-huh. Euh, ma xam ne loo ci mënti gis ci àddina dafa am fooy jaar fi ngay jaar fan la mooy consulter entité yi nga xam ne ni ñoo nekk ci culture bi ak ñi nekk ci art bi. nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu def loolu moo waral tey suñu journée bi ñu ne léegi ci liñ ko mën a tënke mooy defar benn journée de réflexion journée de réflexion bi moo waral jotaayu tey bii yàgg nañ koo préparer yàgg nañ ko waxtaane mais tey la ko yàlla dogal. lan ngeen ci tënk ak artistes yi artisans yi ñuy seen kàddu yëkkatee yan lan lañ gën a fësal artisan yi artistes yi lépp li ñu gën a fësal ci Tivaouane mooy formation ndax formation bu amulee lu bari doy sooxe euh, artistes yi souhaité nañu bëgg nañu lool lool ku leen jàppale jàppale bi lépp lépp boo dee xool lépp jàppale leen ci formation artisan yi jàppale leen ñu ci formation lañuy wax artisan yi ni ci bari dañoo formé wu dans le tas léegi formation boobu ñu def dans le tas moom la ñu bëgg leen a xool naka la ñuy mën a def ndax wax nañ ko ci biir ku mel ni monsieur Ndiéguène wax na fi mu jaar wax na ni moom mësul a jàng mais artisan la te artisan lay mës a nekk mais terewul ci biir loolu defar na ci ba développé ci développé ci lu baree baree bari loo xam ne nii tabaarkàlla macha allah. jur na fi loo xam ne nii bi ma koy expliquer fii tey nit ñëpp dañoo approuvé kon boog loolu nga xam ne moom def na ko bëggal nañu suñu artisan yii ci biir Tivaouane à travers li maire bi soxla muy monsieur Moustapha euh, monsieur Mamadou Diagne Sy Mbengue li mu fa soxla fii ci Tivaouane ñu defal ko loolu mooy jéem a jàppale artisan yi ci formation yi jéem leen a taxaw ci seen bëgg-bëgg gëstuwaay projet yi nga xam ne taxawal nañ ko ak culturel bi yëpp ñu jàppale leen ci ba mu tegu ci yoon. Euh, liñ ci mën a def bari na parce que euh, nee nañu melentaan ak sànqaleñ bu ñu booloo wat weer lépp ci discussion la rek ak waxtaan te fii dëkku diine la dëkku ay kilifa ñoo fi nekk maire am na lu mu wax fan yee paase ci rajo bi waaye lépp bu ñu toogee. càmbaraat yëf yi rafetal ko dinañ damaa dinaa defe naa ni fu ñu bëggee a yegg ci aar bi ñoom ci ci ci culture bi ñoom danañ fa yeggale seen kii te duñu offensé kenn nañu defaraat rek dara ñaawul li ñaaw daal mooy li ñu waxtaanewul toogewuñu ko defaraduñu ko wodduñu ko nit day woddu wax nit day woddu jëfin loolu rek moo am solo. maanaam nekk la culture au service waaw mën na nekk loolu mën na nekk loolu ba tey parce que tamit jàppale la rek jàppalante la ñun li ñu taxawee rek mooy li ñu maire Diagne si Mbengue sant wax ñu ko mooy xool leen force ak faiblesse yi nga xam ne ni artisan yi am nañ ko yi culture bi am ngeen booleel ma lépp. tënkal ma ko defar ma ko ci rapport indil ma ko ñu xool fan lañ ci mën a jaar ba saytu ba jàppale leen ba nga xam ne ne ni seeni difficulté yi ñu amoon yëpp yu ci bari boog ah bu ñu mënul ndax nit mënul la dajal lépp waaye mën ngaa yéene waaye yàlla nañu yàlla mottali suñu yéene. voilà jërëjëf. jërëjëf xam naa français bi dañu la koy baal. <laughs> waaw baal leen ma ko.